salaamaaleykum wa rahmatulah mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñu ngi nuyu ku ci ne ci turam ak ci santam di wax allahuma rabbana anzil alayna maidatan min as-samaa'i taqulana hidan li awwalina wal axirina wa ayatan minka warzuqna wa anta xayru raziqin wa man yatahilla yajhal lahu marajan wa yarzuqhu min qaysu la yaxtasibu wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasbuhu inna allahu balighu amrihi qad ja'ala li kulli shay'in qadran di leen nuyuwaat beneen yoon di kontaan lool nag ci dem biñ demoon senegaal dellusi nañ ci jàmm biñ dellu see yàlla teg ñu fii nattu ci béréb biñ nekk muy béréb bu Maroc bi ñu nekk tey nattu bi mooy tremblement de terre bi fii lañu fekk te bam ñu fi fekkee ñu nag suñu njaboot ak mbokk taalibe yaa ngi fi woon waaye alhamdulilahi rabil alamin yàlla muccal nañu muccal na njaboot gi ñi nga xam ne mucc ñu ci yàlla na yàlla yërëm leen te jéggal leen ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke mboolem wàllu yàlla gërëm ci barke allahuma salli muhammadin wa bi ginnaaw ko ma nuyoo dèjà am contentement bi ñu dalalee ñu jigee Sénégal ñëw ba Maroc seet si wàlla vraiment ndax jaloore bi def ñu jëlee waxtaan ak quelques clients yi nga ni jur nga sékkante ñoom ak jëflante ak am ci retour positif wax dëgg ay quelques leeral leer bu set bu euh, saxaar bi ñu nga ñu ñun euh, euh, ñu sant yàlla yéen tamit seen dal bi fii kontaan nañ ci lool ci sant yàlla yit nag di xam ni waaw set boobu ngay wax ñu ne set bu rëy bu mag boobu ñu ñu di wax waaw set bu wér bu set boobu waaw alhamdulilah sant nañ ci yàlla ba képp kuñ ci jéblanteel ci wàllu seet sant nañ ci yàlla di ci gis sa bopp te suñ la si diggalee sarax soo ko jëfee di nga ko gis bi may ñëwee yàlla dogal na appel yu bëri jot naa ko ci ñi nga xam ne ñëwoon nañ ci man di doon ut jëkkër yàlla may na leen alhamdulilah euh, di wax ñeneen tamit ñi nga xam dañ doon def foofu examen yàlla dimbali na leen ñi nga xam ne am nañu xam amuñu woon liggéey sant nañ yàlla balaa ñu fa jóge am nañ liggéey ak ñi nga xam dañoo tëju woon tëju bu metti umu Dumbari bari dal ay jafé jafé nek ci ay khat khat yalla dimbal nañu ba ñoom yalla def na lan ubbé biñ ñëwee yegg si rek ci la appel yi jolli ñepp nañu wa señ bi man leen du ci man mbirub yalla la ta santé nañ ko yalla di ci gërëm yalla bu baax nak ci ndam lo ñu defal fofu di and ak kontante bu reuy ci dem biñ dem Sénégal ndax jenn jaamu yalla mu fa yobbu won di dem ñaanal ko yalla bañ démé mom tamit biñ dellusee yalla nañu mom tamit lañ ko fa doon ñaanal yalla yalla nangunako kon demu sant yàlla la waaw macha allah ñun ñii di wax ak yow ñooy jox ande ñoo ko sekkoon ak yow àndal ak yow ci liggéey ko jotal a sekkal ñëpp am na ci retour bu positif tey jii ni ñu sant di la gërëm parce que depuis nga jëfante ak ñoom ba léegi ak yokkute dong la ñuy gis seen dund alhamdulilah donc tey jii ni ñu ngi bëggoon waxtaanee tout simplement sëñ bi ci euh, doomu aadama bi nga xamante ni dañ ko liggéey ba mënul dara mm-hmm. kooku tey jii ni lan mooy fexeem pour dollu bi mu nekkoon Eh, liggéey boobu noonu waaw xam nga nit dafa soor moom la nit ñi di wax naan l'homme est ingrat mm-hmm. moom la nit ñi di waxaat naan nit dafa lëndëm mm-hmm. maanaam nit moo mënul gis moo am jalousie par rapport ak moroom nitam te pourtant olof day wax ne nit nit nit mooy garabam kon nit nit rek moo ko war a jëriñ waaye nag jamono toon dañoo dafa mel nit ñu jëriñatul nit ñi dañuy yàqal nit ñi da ngay gis koo xam ne soxla soo xam dafay dem am ku mu bëgganteel. wala mu dem ba desul lu du sëy benn noonam dégg ko dem ci sëriñ mu jaral ko lu ne mu yàq ko nga gis koo xam ne dafa directeur la di gere société mu jëkki saay dem ñu tëj ko tëj mbiram yëpp ñun ñu xam mu salas xam nañ naka la ñuy tëjee doomu aadama ko xam gi xam ni ñuy tëjee doomu aadama noonu la ñu xamee ni ñuy ubbee doomu aadama waaw am na ñu bëri ñoo xam ne dañuy yaakaar mu tas ñi nga xam ne seen xel yi du toog dañuy sikki sàkk am na ñoo xam dañuy toog mais du ñu nekk du ñu assise du ñu am assise seen fit day tëf ci tëf am na ñoo xam ni tamit dañu du am dara du ñu yaakaar mu tas ci lu ñu dugg du dox seen mbir yëpp day tëju yàlla bu ñu demee am na ñu fa tasan lu ñu nekkee senegal waaye bu ñu jëflantee ci wàll loolu alhamdulilah am na benn ibtaal boo xam ni ñu ngi ko jëlee ci Maulana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu ibtaal boobu bàyyi mi ngi ciy wax lu rëy mu ne képp ko sangoo la wax. mu ne six heures lépp lu nekk sa yaram lu mu mënti doon mu ne yàlla da koy dindi man sax su ma koy joxe dama naan leen da leen ko sangoo juróom-ñaari fan. wax ma wax nii yow ah, nga xamante ni boo euh, ah, ah, muy rab muy jinne muy liggéey muy umu lu mu mënti doon sa yaram day set wicc mel ni ba ngay soog a judd. yàlla xam na loolu waaye nag ñun duñu liggéeyee noonu doo ñëw rek ne lii moo dal déedéet mhm. da ngay ñëw soo ñëwee ñu xool lan nekk sa yaram. maanaam ah, moom la ñu woowee seet. waaw waaw ngay seet lan moo ci nekk maanaam fan la la commencé. waaw ah. da xam lan moo ko kii nit du ñëw feebar feebaru sibiru nga koy faj si daal. doo <laughs> am résultat maanaam li ci gën a garaaw mooy tamit nit de ñëw ne dama umu dama nangam dama nangam mais da war a xam lan moo ko waral nit mën ko génn sarax sax loolu yëpp daj waaw mais da ngay xam lan moo ko waral lan mooy cause bi xam nga lu su nekk dafa am lu tax léegi li tax loolu soo ko xamee pour nga régler ko day yomb maanaam dafa mel ni góom nga am góom bu rëy boo xam hôpital la koy faj nga dem ni yóbbu sëriñ ah loolu da ngay sa bopp jafe-jafe waaw moo tax nag loolu moom incha allahu rabi képp kuñ ci jëflanteel ci wàllu ku koo xam loolu dal na ko incha allah dinañ ko dindi ba mu set te ifa boobaa ifa da di ko min ko elayka lay doon ba pare day delluwaat ci ki ko jël ci ki ko def. ok waaw te su delluwaatee ci kooku xam nga nga koy xamee dina la woo baalu àq su la baalu àq di nga ko déggal am na koo xam maa ngi ko ko jox li ma lay wax nii seede baa ngi fiy toog mhm. seede baa ngi fiy toog maa ko jox waaye yàlla xam na ni. du ma tudd tur nag waaye ki ko jege loolu ki ko jege loolu fu fi ma xëyoo dafa AVC wallahi azim képp ku lay def lu bon la wax waaw adduna amul solo waaw ah, dégg nañ euh, leeral yooyu noonu léegi euh, aussi bëgg nañu waxtaanee tamit ci beneen mooy euh, doomu aadama yi nga xamante ni maanaam day utiliser sangat day dem ci sëriñ di utiliser sangat mais mm-hmm. sangat boobu noonu du ko jariñ mm-hmm. léegi lan moo waral loolu noonu sangal boobu du ko jariñ ak tey waaw loolu bëri na nag ñu na ñu may waral di ma ko wax am na ñoo xam dañu jox sangat. li mhm. nga am na nooy mel. yonent bi sax soo la joxee sangat du dox. waaw waaw. Cheikh Tidiane xutba su la ko joxee sax du dox am na nooy mel. benn munoo di ñaan yàlla wala ñu lay ñaanal yàlla benn ngay mooy yàlla. mënul la ñaanal yàlla ñaar ngay fen mënul la ñaanal ñaar ngay wuruj mun ñu lay plaidel di la ñaanal yàlla ngay def lu neexut yàlla dafa mel ni zaayaran tey ji ma am problème ak juge mm-hmm. te yàlla bu ma am léegi juge boobu nga dem ci moom ni ko diw diw de laa ñëw di kiiwal di ko ñaanal njëkk fekk diw baa ngi def ay tooxi doone waaw kay léegi juge bi yëg ko juge bi xam na ni kii mi ngi def tooxi doone waa ah, kay waaw gis nga ñu nga bi moom téléphone bi moom maa ngi tuub bu baax waaw ah, ñuy tuub bu baax a baax ah, <laughs> waaw alhamdulilah ñu sant yàlla bu waaw waaw di wax ne ñaan dafa am lay mel waaye nag beneen kii ñaan tamit dafa am lu muy mel yow tamit mënoo nekk ñaankati yàlla boo xam ne yaa daak ñaaloo ñaankati yàlla boo xam ne doo wax dëgg mhm. ñaankati yàlla boo xam sa xel mi wuruj rek moo ci nekk mhm. ñaankati yàlla boo xam ne doo def dara lu neex yàlla ba pare di wur jaam yàlla yi nga xam ne dañuy ñëw ci yow nga leen di ndax di lekk seen xaalis loolu tamit munoo ci ñaan yàlla mu nangu. kon ci kay léegi beneen bi nag ñetteel bi mooy ki nga xam ne dafa ñëw intention xam nga ñaan ci intention la nekk yéene tey jii ki nga xam dafa ñëw ci sëriñ bi moom dafay am intention bu normal bu baax intention bu baax bu meex mooy mooy maanaam yow soo ñëw ci sëriñ bi. sa xol day laab laab mooy maanaam nga am ay intention yu rafet bañ wurit sëriñ bi lu ngeen diggante nga wax ko mm-hmm. ne ko la bu nekkee cent franc la fexeel nga jox ko cent franc am mm-hmm. waaye yow tamit sëriñ bi ki nga xam dafa ñëw yor benn cent franc xamoo lu mu def ba am ko su ñëwee ci yow jox la ko fexeel ba nu mu la ko joxee lu mu soxla na aajo boobu faju ji nga ñaari intention yi su sellee rek yàlla day def taw feex lu mu la koy indi ci misaal mooy maanaam ji nga xam ki nga xam ne góor la bu tax soxna ki nga xam dafa am jëkkër ñoom ñaar seen ñaari intention yi su baaxee su àndee doom ju barke la ñu jur waaye su intention yi baaxul wala intérêt wala sëyu nanga ma naa dinañ judd dinañ jur doom ju leen laqal mooy maanaam ngay waram naan diw dem naa ci moom jonim ma jox sangam bi doxul dem naa ci moom kii naan nanga ma naa parce que ñaari problème yi ci ñoom ñaar la waaye nag intention yi su baaxee yàlla xam na ni billaahi wallaahi ba Cheikhu Tijaani toog naa nit sant ma aajo wallahi azim moo woo mu woo téléphone comme sa nii ma ne ko waa baax na 18 dinaa ko tàmbali dama ko tàmbalee 18 heures 20 heures xaw ma 22 heures yàlla xam na ne mu woo ma ne ma aaju faju barke Cheikhu Tidiane du dara nag du lu ñuy fëgg dënn wala lu ñu wootoo wala nangam mais lu ñu sante suñu borom la. ci indi euh, tout ak yow man mii di wax ak ma jëflante yow. gisuma ci leneen lu dul euh, ay ondes yu positif yu nga xamante ni mm-hmm. yokkute dong la ma indi sama la sama dund te du man kese muy man ak keneen ak keneen ak keneen am teg na dul de sant bi la gërëm boo xoolee ñi nga xamante ni kat dañuy wut di lekk xaalis doomu aadama yi au contraire dañ ñuy dimbali wax dëgg fa neex yàlla te laaju ñu gërëm donc nag tey jii nii euh, sëñ baa nii bokk internet yi kii mi ngi nii jaaxaaroog ñun amul benn problème boo jafewul gis euh, numéro bi nga xamante ne moo suuf ko ci soxla bokk ci waaye di ko gis te ay mbiram dara méttiwut yi dañuy defal defal rek euh, te yàlla tax voilà donc nag tey jii nii aussi bi ñu génnee ci fànn boobu am na ci ay doomu arab yi nga xam ne dañuy réclamer xaalis bu loxo lu ñu dem parfois sax lu gis dèjà waaw te tey jii dañu bëggoon xool te maa ngi doon dégg aussi nga bu nga xamante ne doomu aadama bu ko takk mm-hmm. ci loxoom du ñàkk ndeysaan waaw léegi nag ñu bëgg leeral rek waaw loolu moom dëgg man mii tey benn maa ngi takk sama soxna du mm-hmm. ma jaay <laughs> ak ñeneen ak ñeneen <laughs> ba ci ñi am nañu toog fii si jotaay bii tey mm-hmm. bañ leen tudd seen tur rek moo tax mm-hmm. ñoom tamit moom lañ jël si te moom lañ yor yaa ngi dégg képp ku ko tak maa ko garanti sa loxo dootul bënn lu dugg sa loxo day toog te yàlla day dogal su duggee ba pare yàlla day dogal day xëccaat xewal mu dikkaat sa loxo yàlla xam na li may wax nii ah man de jaaroo moom def naa histoire jaaroo moom jot naa ci am tout simplement ay retour wax sax am na benn client bu nekk Canada boo jotoon ci jënd ci jaaroo bi mhm. dafa tax même pas une semaine mu jot trois millions ndeysaan trois millions yi nga xam ne xamul fi la ko mosu koo yaakaar waaw ah. amul aussi benn keneen koo jëflanteel aussi nee na jot na cinq cent mille yi nga xamante ne nii xamul yaakaar ko fenn nga benn sama soxna voilà moom six cent mille la xam nga tey jii nii kon am na ay euh, ay produit yi nga xamante ne jaaroo bi kon euh. dëgg fa neex yàlla euh. boo ko taxee ñu gis njëriñ ndeysaan voilà donc euh, kon mi ba mi ngi nii léegi jaaro bi ku ko bëgg noonu lu muy def. waaw jaaro bi ku ko bëgg da ngay woote ci numéro bii man la Cheikh Pape Diagne maa ngi dëkk fii Maroc mhm. dëkk bu ñuy wax Mouhamadia résidence bu ma nekk mooy Laxalu fa laa nekk numéro bii ngeen affiché mooy suma numéro téléphone képp ku ma mënti jot ci àdduna bi soo ma woowee di nga ma jot. mais ku nekk Sénégal moom bëgg laa jot. foo mënti nekk soo ma woowee sama numéro bii di ma jot. te soo ma jotee foo mënti nekk ci àdduna bi foo mënti nekk ci àdduna bi jaaro bi dina la fekk te di ko takk ak sangat bu ñu mënti jëflante ak ñaan yàlla bu ñu mënti jëflante da nga ci jot ndax man fépp laay yóbbu Canada États-Unis France Espagne waaw man am naa ay GP yu voyagé waaw am naa ay GP yu voyagé yi nga xamante ni moom fi nekk di dimbali doomu aadama yi di defek rek te yàlla tax di leen ñaanal tout simplement faj euh, aajo doomu aadama yi ah wax dëgg fa neex yàlla man de bi ma la xamee ba léegi wax dëgg fa neex yàlla yokkute dong laa gis ci sama aduna man ak samay morom waaw léegi nag euh, dañuy euh, passer tout simplement à l'étape suivante mooy que tey jii l'autre fois bu ñu doon waxtaan dem nañ ci waxtaan Ousmane Sonko président Ousmane Sonko mm-hmm. parce que actuellement ñëpp xam que ni loxo yoon daf ko teg loxo actuellement nii mi ngi prison et que tout simplement que discours mujj da nga waxoon ni incha allahu rabbi dafay génn te dafay bokk ci élection yi. incha allah waaw léegi nag dañoo bëggoon wax ak ñu. allah xam nga léegi am voilà. position bu ñu amoon démb ak bëkk dem ci lañ nekk Sonko day génn. Sonko day génn. incha allah ci kàttanu yàlla. day génn te te bu dul dara sax ñaanal ma ko kenn. muy suma papa muy suma mak, muy kep ku du Sonko képp ku nekk ci kaso bi maa ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu génn la fa bu fekkee. innocent nga comme ni ñenn ñi nekkee innocent maa ngi ñaan yàlla mu génn la bu fekkee nag defkat nga ñoo ngi ñaan yàlla ñu teg ca ci yoon bu ëllëgee dootoo defati parce que tey tamit nit mënu rey nit nga ñëw ne nañ ko génn wala nga jàppee ni dof la wala nangam ak nangam boobaa suñu société mooy gën a yàqu sama doom mun na xëy génn gars yi taseeg ñoo ñu rey ko keneen ak keneen kon ki nga xam ne deful maa ngi ñaan yàlla subhanahu wa ko ci kaso bi ci bu gaaw ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax loolu euh, yéenewuñu ko mbindeef kaso yéenewuñu ko kenn sang bi wallahi lu metti ak lu bon yéenewuñu ko kenn ci kaw suuf waaye jamono ñu toll nii dafa mel dafay yàqu nit da ngay gis nit nit dugg kaso wala nit lu bon dal ko ñëpp kontaan ñëpp kontaan te loolu baaxul li nga tey xeex bi am ci diggante Macky Sall ak yow keneen ak keneen wallahi su jàllee day mel ni dara mosu fi xew ak nit ñi fi dee yëpp day mel ni dara mosu fi xew parce que jamono moo mel noonu seytaane mooy yëngal ruuxay mooy yëngal jaamu yàlla ñi nga xam ne takkewuñu ci yàlla te amuñu garanti ñoom seen bakkan mooy mooy dem dafa mel ni garab bu jékki saa rek fudd yëngatu xob yu bon yëpp ay wadd wallaay xataa yu baaxee sax dina waddaale mooy ñi nga bakken yu bari ñu ngi rot te bakkan yooyu mënoon na nekk ay président mënoon na nekk ay ministre mënoon nañ nekk lu nekk jëriñ suñu askan xam nga waaye sant yàlla rek yàlla yàlla def tawfeex. incha allah rabi yàlla yàlla def tawfeex comme mm. léegi beneen euh, pàcc bi parce que waxtu bi mu ngi bëgg a tax tout simplement dañuy waxtaanee kat sa mbokku seetkat bi sa mbokku sëriñ bi laa ko mën kat dégg naa dafa tooñ alquran wax ci loo xamante ni war koo wax mais heureusement ba suñu borom dénki xel bu mu daal di jégalu. Mm. loolu dañuy bàyyi tout simplement nga def ci yaatal xoolee. waaw tur bu tur bu sell la. tour santam bu la ndax si se soko waxe rek da ngay deg Cheikh si se da ngay deg Imam Hasan si se lisan, yalla yalla def tawfiq fep ci barke Seydina muhammad yalla may imam Gudufan fan ak wer ci barke alquran ci barke mboolem wala yalla gërëm wa Cheikh Ahmed li def dafa tout te bimu toubé tuubee te yàlla moo ne astaghfir rabbakum innahu kana khawaran la wax mu ne waxe astaghfir astaghfirullah ma jéggal la la wax te te jéggalu na yalla te du ci dellu mhm. ah ci li ma foog waaye jaamu te ku tooñ yàlla tooñ nga julliti mais dafa mel ni ku tooñ sa papa rek tooñ na doomi mhm. léegi nag nit ñi ku ko mënta baal nañ dem fu mu xam ne doone benn ñu teg ko luñ koy teg waaw mais nag ñoo ngi koy ñaanal yàlla yàlla soppi ko du suñu mbokk nag ci wàllu sëriñ wala ci wàllu ñaan yàlla génnewuñu ko si waaye dama lay bëgg a wax ne la mboolem jaamu yàlla yi mhm. ku ci ku nekk nit day wóolu ñaanam rek wala bañ ko wóolu waaye ñun ñëpp ay ñaankatu yàlla lañ ndax tey jii ni ñu koy xamee mooy musiba ci ku muy dal da nga naan laa hawla wala quwwata bi billah wala nga tudd yàlla wala nga tudd sëñ Tuubaa wala nga tudd keneen ndimbal ngay wër. ah Cheikh waaw loolu ay waxam la rek. Ah, waaye xam moom na xam waaw xaritu yàlla la. waaw <laughs> ko neex. xaritu yàlla du ko def lu ko neex du ko def lu ko neex nañ ko ñaanal yàlla rek nañ ko ñaanal yàlla yàlla jubanti xelam yàlla jubanti yëgam dama lay indil benn xisa ci jamono yonantu bi dama lay yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam dafa amoon ay saxaaba wala am ay jaamu yàlla yi nga xam dañ daan solo solo jullit ay yéefar nag di dugg ci biir jullit yi bu guddi jotee ñu leen di rey loolu mi ngi am ba tey loolu mi ngi am ba tey te tey mënoo sax laa bëgg a wax noo koy xàmmee waaye yàlla mi ngi wax ci alquran suratu baqara numéro 7 8 9 10 ba wàcc yàlla mi ngi wax am na ñoo xam man maa kasare seen dënn la wax mun na am na ñoo xam man maa kasare seen ñoo xam ne man maa jël mbalaanu kuraay te ko seen bët am na ñoo xam maa mu ne am na ñoo xam ne nee nañ gëm nañ suma alquran maa ngi wax man yàlla ñooñ gëmuñ suma alquran mu ne ñoo xam ne nee nañ gëm nañ bés penc man maa ngi wax man yàlla ñooñ gëmuñu bés penc mu ne waaye bu yombal xiyaamee danaa leen teg lu tar dañoo foog ne man la ñuy nax fekk seen bopp la ñuy nax mu ne waaye bu yomal xiyaame daa teg lu tar la yàlla wax est-ce que est-ce que ay dégg loolu waaw léegi léegi ku mu tey képp kuy jullit nga dégg wax jooju wala nga dégg aaya boobu wala nga dem xool ko foofu da nga ciy xool sa bopp waaw da nga xool sa bopp waaye alhamdulilah alhamdulilah rabbil alamin léegi dama bëggoon am bi. de téléphone bi la rek ñooy tuub ñooy tuub waaw la noonu la de wallaahi. ndeysaan.

mooy situation bi fa nekk neexuñu mhm. tey suñ sañoon day nekk Sénégal boo xam ni day nekk Sénégal bu mucc ayib mooy gën dëkk yëpp wallaahi dëkk bu ma dem billaahi suma xol bi dama koy xoolee Sénégal te loolu du man rek ñu dal bëri na léegi nag tey te maa lay wax ay kàngam ñu ngi ci dëkk yi te dellu suñ dëkk boobu rek ne tey jii dëkk bi nga xam suñu tubaab fa la tëdd mhm. Mawlaana Cheikh Ibrahim fa la tëdd Maam Abdoulaye Niass góor yàlla yi punkal yëpp fa lañ kon dëkk boobu dëkk boo xam ne moo tax yàlla defal ñu teraanga yi ñu am yëpp kon Sénégal li koy neexal mooy ci ñun la nekk li koy baaxal ci ñun la nekk première mooy nañu bëggante ngir yàlla nañ jàppante ngir yàlla dañu bàyyi jëwante bi dañu bàyyi fenante bi nañu bàyyi yàqante bi te nañu bàyyi warante bi te bàyyi gasante bi ak suulante bi ñu nga cheikh bi suñ defee li bëggante te yàlla tax te ñu bàyyi nit su ko dalee dale rek nga ni ñëw nañ bàyyi lool wallahi nañ bàyyi loolu di nga nit loo ko yéene rek danaa dal te su la dalul dina dal sa njaboot te te gor gor rek ngay nekk te jullit rek mooy gor kan mooy jullit mais ki nga xam dafa yéene ñëpp jàmm ki nga xam ne dafay dafay tëkku ci charia tëkku tënku ci sunna ba pare su jégee loolu ba pare ba pare muy dimbalante diggante jaam bi ak jaam bi yaa ngi dégg sang bi mm-hmm. kon tey ji nañu lu may waxaat jeune bi mooy jeunes yi ñun ñoo yor senegal ñun ñoo moom Sénégal nañu yaatal Sénégal nañu bëggante te bay ji nga tay politique yi ngay gis fi yépp lii day jallat légui day jallat légui mu jallat tay ji muy Sonko muy Macky Sall muy Amadou Ba ku mu mën ci tok ñun gëreem nañ waye nañu tek ci dëgg tek ñu ci yoonu siraatika mustaqim te baña lek lekk askan bi te ñu bañu note noot te ñu baye askan bi pays mu nekk pays démocratie. alhamdulillah macha alamin wa salaam sëñ waxtu yi daf nañu euh, kontaan nañ trop ci euh, jëflante ak yow comme hmm. encore une fois ma ko euh, biir Sénégal ba Maroc ñëw seet si la. Hmm. Euh, la euh, euh, waaw ak waaw wax ni ma leen wax maa leen bàyyi man damay wax maa leen jàpp <laughs> ndax bëgguma ñu bàyyante mukk ah, ah. bëgg naa ñu jàppante ba ilaa yawmil abad mu nekk jàppante boo xam ne dëgg moo koy lal wa li alquran di wax wa tawasaw bi xaq wa tawasaw bi sabr ak muñalante ndax nit maju di wax leneen mooy. Ya, ya, di gërëm nak bu baax seigne malik di ñaanal yalla guddu fan ak wër di gërëm Cheikh Moussa Touré yalla may ko guddu fan ak wër ci barke wonte bi ci barke alcorane di kontan ñu nekk fi yépp ci jotaay bi sama soxna di ziar Baye Mamour Baye Basirou di leen ñaanal yalla yalla may yalla may ñu ubbé ak garantie dafa ko mbolum julit fu ci nekk ci aduna bi ku nekk ci xat-xat ma ngi leen ñaan yalla yalla tegg la say xat-xat ku nekk ci jafé jafé ma ngi leen ñaan yalla tegg la say jafé jafé ku um wala ku nekk ci ay jafe-jafe maa ngi lay ñaan yàlla yàlla teggil la ko ci barke alquran ci barke yow saa saam te ngeen di saxoo di wax astaghfirullaha képp ku ko mën chaque julli nga koy def 66 fois soo ko defee incha allah yàlla dina la jégal te su la jégalee dina la may taw dina la may ajana dina la may doom dina bubal xéwal dikal la ndax yàlla moo ko wax astaghfir rabbakum innahu kaana xafaaran yursala simaram midraar wa yumdikum bi amwaali wa banini wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhaaran jërë ngeen jëf kontaan nañ loolu sang bi jërëjëf merci beaucoup di jaar incha allah beneen